ci déception totale ak it naqaru xol lañu fekk ñi nga xamante ne ñoom ñooy dawal Jakarta fi nag ñu ngi ci Kër Massar ci rond bi fi nga xamante ne foofu la Jakartamaan yi di dajaloo. Euh, ñu ngi ñuy wax lu ne ñu ngi def jiñ lu ne tamit mais ay ndaw lañu ndaw yoo xamante ne dañoo bëgg liggéey parce que boo xoolee comme ni mu koy waxee chaque jour cag-cag bi ndaw yu koy def plupart bi yëpp dañoo am métier. li part bi mais chômage moo leen indi ci loolu parce que boo xoolee au niveau bu ma jëlee exemple ci man man je suis un entrepreneur bâtiment jàng naa ko presque maa ngi ci ak vingt ans ren jii mais nag des fois bu affaire bi dëgëree ma ñëw ci cag-cag bi comme comme ça nag loolu nag ñu bëri loolu moo leen ci poussé mais nekkuñu di saltel nekkuñu nit yoo xamante dañoo indice pour liggéey moo tax ñu jóg pour tamit defar suñu bopp ak ak defar suñuy kër moo tax ñu jóg quoi mais n'est pas n'importe quel quel nit quelle affaire la ñuy ñuy dox quoi la ñuy def quoi mais suñu affaire bi moom vraiment temps yi jaxasoo na trop trop trop trop trop trop fu ñu génn gars yi ñu ñuy jàpp toute la journée doo mën a liggéey doo mën a def dara tamit moo waraloon tamit ñun ñu génn du ñaxtu di génn di wax suñu naqar. di ko yëngal même ñun ñuy sax daf ñoo bett parce que dañoo xëy rek tombé si une grande surprise gis mu mel nii mu doon loo xamante ni bett nañ trop amaana ay ndaw lañ. ay xale lañ mais tamit aussi du tax ñu dugg si lu ñaax fayda ay xale lañ ay ndaw lañ mais dañoo teel a doon responsable parce que niñ leen yaakaare ñoom ñun tamit noonu la ñu yaakaaree ñoom ni ñu amee famille ñun tamit noonu la ñu amee famille mais tamit man gëm naa ni yàlla moom mooy séddale mais ni ko yàlla séddale nii ba ñun ñu féetewu nii ñoom ñu féetewu nee bu ko yàlla séddale woon noonu tam ñun ñu féetewu nee ñoom ñu féetewu nii dinañ am beneen compréhension buñ si doxalee nu nii pour man ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal bi suñu Sénégal la. si Jakarta toog fii liggéey je pense que fii nii comme ni la ko John waxee sàgg ku si nekk am nga sa métier mais tey jii nii amaana Sénégal moo nekk réew bi nga xamante ni maanaam day suul ndaanaan moo waral ku si nekk xam nga nga jéem a wut sa Jakarta wut si loo jàpp mais buñ ñu amoon lu ñu gënal du ñu nekk xam nga ci kaw tali bi di tay la suñu live tamit benn instant. doon euh, xam nga am na ci loo xamante tey jii ku ci nekkul moom mënu koo xam tey jii ñi nga xam ne ñoo ci nekk tey jii bu ñu état woon ñu toog dinañ ko woon fi nga xamante mën na jaar maanaam ñun ñëpp ñu réglementé benn yoon yaa ngi comprendre je pense am na loo xamante ne tey li fi nekk tamit ci Jakarta yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp boo leen bëggee ne par force yéen ñëpp da am assurance am carte grise dina bari ñoo xamante ne da nga leen yóbbu au information depuis une semaine ñoo ngi ko dégg mu doon loo xam ne bett nañu trop dañoo bett trop parce que ñu ñoo nekkoon daw yoo xam ne ni ñoo gëm suñu réew pare pour liggéey suñu yenn morom yi jël nañ gaal yi dem mais ñu ñoo gëm ne ni projet bu ñu Ousmane sonk waxoon ak waa Pastef dañoo gëmoon ne lii lu mën a réaliser la suñu dëkk. parce que gis nañ yeneen dëkk Afrique yi di jaayante pour sukkaleku ba seen dëkk di avancer ko ñun gëm nañu Sénégal war na mën a jëm kanam. suivre nañ programme Pastef gëm ko di ko xeexal jaxar ak homme de tenue lu nekk ñu daj ko. lu yàgg ñu doon ay jeunes di ko jaayante ba en 2024 yàlla def lépp sotti ñu doon xaar nag nouvel changement si ban côté ñu gën ñoo may sécuriser may ñu ay papiers yoo xam ne dañoo mën a am carte grise assurance bi lépp mën a yomb ñu mën a toog suñu réew liggéey jéem a réaliser suñu réew jéem a investir toog fi mais lu ñu gis nii moom daloo suñu xel wax dëgg yàlla parce que Ousmane Sonko yàgg na taxaw ñëw na fii Kër Massar. première première campagne bu mu première bi bu mu def fi vidéo bi moo ko defee biir Kër masaar fii wax fi lu am solo wax loo xam ne ne ñun ko ak Kër Massar yi dañ koo gëm te gëmoon nañu loolu war na mën a réaliser wu mais bi dañoo am déception. ndaw yii de yi nga xamante ne dañuy dawal ay jakarta ñu ngi ñaawlu comportement yi nga xamante ne yooyu la autorité yi fan yi ñi nga xam ne ñoo ci nekk tey ji bu ñu état woon ñu toog dinañ ko woon fi nga xamante ne mën na fa jaar maanaam ñun ñëpp ñu réglementé wu benn yoon yaa ngi comprendre je pense am na loo xamante ne li fi nekk tamit si Jakarta yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp boo leen bëggee ne par force yéen ñëpp da ngeen am assurance am carte grise dina bari ñoo xamante ne nga leen yóbbu au chômage je pense am na ñoo xamante ne amuñu moyens yi pour dem defi loolu kon tey jii ne état tey moo ñu waroon dimbali defar ñu yooyu noonu nga xam te da koy def gratuitement ñu am suñu ay carte grise am tamit suñu ay permis de conduire assurance tey ji jàppale suñu secteur bu baax a baax a Euh, ak insécurité ak sécurité bi tamit ñàkk sécurité bi tamit ñàkk kaaraange da koy gën a yokk parce que ndaw moo xamante ne day xëy yor machine am yaakaarul dara lu muy dundee ci machine bi la ko yaakaar yow nga jël machine bi yóbbu ko brigade téye ko foofu kooku xëy di galère liggéeyul deful dara bu yàggee day dem agressé ji boo lu yàggee mu dem sàcc ji man pour man loolu du solution bi solution bi mooy ñu wutal leen solution boo xamante ne dañ lay mën a teg ci bonne condition yoo xamante ne condition yoo xamante ne ñoom buñ jógee rek nañ ñu mun a xam ne de quel que soit alpha lii la ñu war a def ak lii la ñu war a jaar ak lii la ñu war a jubal mais de question que ne nga jàpp machine am jóobu ko gendarmerie tëj ko foofu fourrière ko te mun naa ne machines yi ñu ngi cher nañu quatre cent cinquante mil nga jël ko jëf ko ci sa jënd ko pour liggéey jëndoo ko pour caaxaan da nga koo jënd pour liggéey kooku nag bu ñu jëlee machine boobu tegee ko ne tëj ko gendarmerie fourrière ko yow moom nan ngay def boo xëyee amoo loo lekk nan ngay def bu yàggee nga dem sàcc pour man daal nañu xoolaat beneen solution boo xamante ne war nañ ci mën a jàpp ba ku ndaw bu nekk mën a ci gis boppam quoi. liggéey la ñun dañuy liggéey ñoom dañuy liggéey ñun niñ leen joxee cër ñoom nañuy joxee cër noonu ñun bëgguñu tëb di dem di defal naka sudul noonu ñeneen ñi niñ koy defee ñun mën nañ ko ëppuñ ñu fit bi ëppuñ ñu sañ-sañ bi mais leen rek xëy na ñun lañ leen ëppalee muy gëm bi ak am lu ñu joom ak am lu ñu rus buñ sukkandikoo ci ñooñee li ñu xaar ci autorité yooyu le nekkul leen lu dul ne ñu bàyyi leen ci seeni métier bi loolu moo gën ñu leen di dàkk ci circulation bi. lenn rek laay njëkkal a foofu appel mooy suñu autorité bu bees bi suñu autorité yu bees yi sax la ñuy wax ñoom du mag ñi ñoo leen fal ñun jeunesse bi ñun ñoo leen fal ñun jeunesse bi ñun ñoo leen fal te bu ñu ni ñoom ñoo taxoon ñun ñuy jaakaarloog. homme de tenue yi di xeex ak ñoom ñun bañuñu loolu ñoom ñoo taxoon ñu jàkkaarloog homme de di xeex ñoom mais tey naka ñoom ñoo mujj ànd ak homme de tenue kon affaire yi instant bi lan nuru ñun dañ leen yàgg jox cër ñun dañ leen mës a jox cër comprendre ñun dañ leen mës a jox cër ñoom ñoo taxoon tey ñaata bakken moo fi rotoon ndax lan ñoom ñu mën a nekk si si si bu baax condition bu neex mais tey dañoo war ndax ñun dañ leen xeex la ba mais tey dañoo mujj a tourné waat jaakaarloog ñun di defanteeg ñun ñun bañuñu loolu bañuñu ku ñu fi jëlee mais nit boo booy teggi na fekk nga préparé pour teg. onze tey nga xëy ay am benn 5000 francs def nii dem police jaxaay tasanteeg ñoom tey ñun la taral tey daan la léegi dañ lay laaj benn 6000 francs par force koy génnee yow tey ji mu leeral yow yaa ngi war a jënd essence war a tamit 5000 francs boobu nga wutaa beneen 1000 francs boo ci doole bu yàggee yow boo ko verser danaan booy bi liggéey di lekk sama xaalis bu ko mënatul muñ da koy boobaa nag tey jii jeune boobu noon tey perte loo nga ko place te tey jii dama koy wax te dès quoi policiers yi dañuy agressé ci kaw tali bi am na ci loo xamante ne agression agression la quoi ndax tey man nekk doomu dëkk bi nga nekk doomu dëkk bi nga jàpp ma même su ma amul këyit war nañoo teg ay mesures yoo xamante ne yow di nga ma bindal loo xamante ne su ma la joxee sama xaalis ci keesu état lay dem donte aw këyit yaa ngi comprendre mais duñ la bindal yaa ngi dégg pare dañ lay laaj xaalis boo ko mënu ñu jël sa moto dañ teg ko biir gaat ba ndax joxuñu ko lekk joxuñu ko naan am na nu muy demee si ñu bàyyil loxo fa boo ko jël yaa xam bu demee ba yàgg ba yàgg da ngay ñaax loolu tamit dafa tegul fenn tamit quoi jaay doole la benn côté. ñun dañuy jaaxal dañuy jaaxle trop parce que déjà maire bi ñëw ne ba fii maire Bilal ñoow ne ba fii wax ak ñun ñu ne ko ñun ma ko tontu ma ne ko bu muy metti ñun nga gis kon tey warul dem ba changement am ngeen jël dëpp ni ko ñëw jublu si ñun parce que ñun li lañu am li la ñu suturul demuñu sàcc ñu agressé wuñu parce que yàgg nañoo lancé li ñu wax si ñun ñu cag-cag maa ne suñu problème mooy dèjà forêt baa ngi nii agression bi bëri na fi mais lu tax demuñu sécuriser forêt bi yaa des moor am am na benn demi pas bu doon dawal agression lañ fa am ay jeunes ñoo ko agressé ba rey ko suñ booy fii dem nañ ba foore ba ñu daanal leen gaañ leen nangu seen moto yàgg nañoo lancé loolu pour ñoon bu autorités yi ñëwoon nouvel gouvernement bi dinañ gën a sécuriser su suñu domaine cag-cag bañ buntu xatal bañ ñoo génnee si population bi parce que ñun génnuñu demuñu fenn suñu dëkk lañ toog pour réaliser wul liggéey am na lu ñu métti trop wax dëgg yàlla. jakartamaan yi ñëwaat nañu tamit ci seen situation ak chauffeur taximaan yi. Euh, àdduna maanaam ku nekk sa wërsëg xëy na ñoom dañoo doylawul lañu am rek ndaxte tey jii bu ñu amoon lu ñu gënal ñun tey jii ni tey duñu yegg si jakarta ak ngelaw leeg xam nga danger yi nekk si tali xam nga di fay fay ngir lan wut luñ yóbbu suñu kër bu ñu sañoon ñun dañuy nekk si dans les bonnes conditions quoi. kon duñ fi nekk kon maanaam di am ak ñoom par tey ji la moo tax ñoom ñu mun ñoo jaay doole je pense daf cee bari jeunes yi nga xamante ne dawal moto yi nga xamante ni amuñu këyit yaa ngi comprendre te këyit yooyu noonu tamit maanaam état moo ñu ko war a mën a jàppandalal moo ñu ci war a mën a dimbal dafa ñu ay mesures d' accompagnement tey jii ni suñu amoon lool rek amaana tey jii ni ñoom dinañ bàyyi duñu bundu xataas tali bi ñun ñëpp ay sénégalais fi lañ juddoo fi lañ dëkk fi lañ yaroo fi lañ defee lépp kon ñun tamit fii lañ a wax ni càccament na ci war a jëlee à cause de affaire de taximan ak ak yooyu yooyu mais c' est pas normal parce que ku sa wërsëg ngay jël taximan bi day ñëw waxaal ak benn client boo xam ne moom taxi moo ko arrangé dafa bëgg a toog fu confortable dem këram di nga gis soo xam ne nii dafay yàqamte leneen leneen lu ko arrangé mooy mu jël cag-cag dem këram parce que temps bi may ko loolu ku nekk sa wërsëg ngay lekk des fois da ngay gis si tali bi comme lu sa sama collègue bi waxoon sànq dañuy gis taximan bu paan bu nekk si ay difficulté ñun dañuy gaare suñu moto ñoo jàppale ko ndax lan ñoo bokk tali bi ñàkk mënul ñàkk parce que instant bi nii nii muy ñun ak chauffeur taximaan yi ñun ak chauffeur kalandoo yi ñun ak chauffeur bis yi lépp noonu la comprendre nga que dañuy jàpp ne instant bi ñun cag-cag maan ñun ñoo tax ñoom seen liggéey doxatut amaana affaire yi du loolu affaire yi du loolu affaire yi ba maanaam da nga koy par exemple benn boolu ndab la rek benn boolu añukaay ñii dañuy tibbee loxo ñii di tibbee kuddu mais lépp si gémmañ la jëm comprendre ñun ñoo bokk benn milieu bi ñoo bokk benn job ñun oh, ak ñu leen a jox cër nag barki alxuraan ak ñu leen jox ñun bu ñu rombee tey benn chauffeur kalandoo ak benn chauffeur taximan nar a jote ñun dañuy gaari suñuy arrangé ñëw arrangé mais tey da gis koo xamante ni da lay yaaxal ba pare nekk si biir otom du sax xool wàcc xool ba xam yow gaañoo wala gaañoo te moom xam na ne oto la yor yow moto nga yor xam nga bu déggee kërëng tey pour man amaana balaa ñoo lijjanti war na mën a ñëw xool ba xam nit ki gaañ na wala déet mais da ngay ñëw ñu naan que yow yaa xamante ni xajoo fa diggante a faa dugg wala wala yaa lii man maa ngi samay papier xam nga complet yooyu la ngay jimee te xamul ne affaire ndeysaan liggéey la rek. tey jii li ñuy ñaan autorité yi moo di ñu jàppale leen ñu mun a réglementer secteur bi nga xamante ne moom la ñu nekk. tamit Ousmane Sonko daf ñu digoon nañu carrément ñun jeunes yi dañ ko xeexal bu ñu ko xeexalee ba nga xamante ne jël na réew mi am na yenn injustice yu bari yoo xamante ne dina fi dañ mais ñun jeunes yi wax dëgg fa yàlla suñu xel dalatut suñu xel que lii ñu gis ni mu commencé di di di kii di démarrer wu nii fañ ko gis mu ñu fay jëmale arrangé wuñu bu yeboo xaw ma kan moo koy conseil mais na tegg tànk fi ñu ko teg ni ndax foofu arrangé wul jeunes yi ñu dañoo jug pour liggéey juguñu pour sàcc naanuñu fenuñu defuñu leneen liggéey la ñu gëm dañoo foogoon nag moom bu ñëwee tey jii ñun ñuñ nekk ñàkk nekkee en règle dinañu teg si dans les bonnes ay mesures d'accompagnement ba nga xamante ne ñun dinañ réglementé wu mais comme li ñu gis nii ñun dalu suñu xel fa dara mais tey nga bëgg teggi dala amaana après ñun nan la ñuy def ñun ñi ngay gis fii nii fu mu nekk pourtant ñun ñoo fi nekk ak suñuy rakk ak suñuy yaay ñun kese ñun ñoo nekk fii si station bi di souffrir gisuñu ku ñuy maanaam pour mën nañoo dem si nit taalal ko suñu loxo mais duñ ko def bu ñu amee ku ñuy taalal suñu loxo kan lay doon yàlla suñu borom fii koo yaakaar yàlla yaakaar ñun yàlla lañ yaakaar ginnaaw yàlla lañ yaakaar nag ñun ak suñu liggéey ñun duñu dem si nit naan ko lii lañ bëgg lii lañ bëgg lii lañu bëgg vraiment pour vous dire vrai ñuy wax noonu ñoom xam nañu baax yeen secteur la lu ñuy wax noonu parce que bu dee domaine la client bu dem boo ñëwaatee fii nga fekk fii ngay fekkaat ku la yóbbu woon fii nga koy fekkaat ñoom bu ñu mën mënee jàppale yokkuñu si wàllum papier montage gendarmerie ñu wàññi moto ñuy jàpp parce que instant bi gendarme foo dem foo dem si niveau gendarmerie ñoo fa gaare ay machine te seen i borom amaa loolu lañu yaakaaroon si la ñuy liggéey dem jox seen waajur si la ñuy xëy di si lekk si la xëy di si dox seen soxla comme bu ñu demee ba benn moment ñu gaar tey seen machine yi yaa am problème. naka noonee ñoom ñii de wax nañu it seeni bëgg-bëgg. jëmale ko ci ñi nga xamante ne ñoo nekk ci gouvernement bi. tun tranquillité parce que tamit ku wax moto wax euh, régulariser ak matriculation loolu tamit da ciy am solo parce que borom moto yi ñu ngi leen di jiñ lu ne comme nag solution pour ñu mën a liggéey ñun war nañoo mën a jàppale ci carte gris pour nu ñu koy amee mu gën a yomb quoi assurance bi tamit loolu pour ñun la war nañ ko mën a jàpp pour mun a permis de conduire tamit bu ñu defee loolu ba pare. après ñu xool ni ñu mën a së toogee waxtaan ak état mën a sécuriser suñu euh, suñu secteur bi sécuriser ko bu baax nga xamante ne ku ci képp ku ci nekk rek lu la war doo xaar sax ñu wax la ko boo jógee rek loolu ngay def directement man pour man loolu buñ ko indee rek saafara dina am ko quoi. mbetteel la je pense que tey jii nii Macky lu mu bon bon bon bon bon bon bon bon bi mu mënut a bi ñu demee ñun ba nga xam te ne am na objectif bu rafet bii am initiative ba def ko réaliser ko donte donte tey jii nii amul benn fekk ñu fekk cent franc mais nee nañu nee na ñi nga xam te ñoo doon jàpp bàyyi leen ñu liggéey yaa ngi dégg dañu sol casque tey fexe am këyit dañu foogoon nag wàllum këyit yooyu noon moom bu ñëwee daf ñuy réglementé defal ñu ko maanaam si anam bu mu gën a yombee su ko defee ñun ñëpp ñu nekk si yoon ñun bëgguñoo nekk si illégalité dañoo bëgg a nekk si yoon ndax ay citoyen sénégalais lañ te ay patriote lañ waaye nag lii ñu gis nii mu koy def ñun jëmale wuñ kanam te et puis wuñu tamit maa ngi si milieu bi nii su ma xëyee chaque jour maa ngi si fii nii ngi dégg rumeur ay jeunes yuy commencé ñàkk espoir parce que barke démb rek suñ benn collègue moo ngi ñëw di ñu tooñ nee am na gaal bi waaj a départ di ñu tese fekk moo ngi doon wax noonu di ñu tese ñu ne ko ñëw ñu dañ demuñu fii la ñuy toog parce que ngëm-ngëm bu song amoon ñu dañ ko yàgg am ba gis lu mu wax ñu ñu gëm loolu topp loolu ba en ce moment là gisatuñu loolu wax dëgg yàlla ñu leen la ñuy ñaan ak leen la ñuy wax muy autorité waa PASTEF muy président Diomaye Faye ak Ousmane Sonko premier ministre ñoo ngi koy wax ni yàggul dara mu commencé 2019 ba 20 ba 21 coow lu yëpp la ñu fekk coow li yëpp fi la ñu fekk xeex bi yëpp fi la ñu fekk dañoo nekkoon sur le terrain di ko xeexal mu woo jeunesse bi woowu jàmbaare ñu ñu teewlu ko ba heure bi nii mais c'est pas normal carte gi di dëpp si ñun ñuy am loo xam ne ni déception la ñun déjà sànq am na benn homme de tenue bu ñu fekk fii nee na ñu déplacé te ñun suñu aree dafa nekk en règlement kii mooy suñu chef de garage dañoo yor suñu réglementé client bu ñëw di dina nga yóbbu sa kër même boo amee loo fàtte sax boo ñëwaatee si arrêt bi di nga fa fekk nekk ñu boo xam ne ni da ñëw di si am ay difficulté fàtte bagage di amaan ay problème ci samedi bi bëri nañu woon ay jakartamaan ñi nga xamante ne ñu ngi woon foofe ci banlieue bu Ndakaaru di dox dox ñaxtu ngir rek mën a ñaawlu jafe-jafe yi nga xamante yooyu la ñuy jànkoonteel ci yoot bi waaye décision autorité yi nekk ci gouvernement bu Sénégal yi nga xamante ne dañoo njortu ne bëgg nañu retirer jakartamaan yi ci circulation bi ci mim réew